ngay wax nii c'est un problème comme je t'ai dit xam nañu ko ñu ngi ciy wut saafara te gëm naa ni programme yi programme président teg fii ba peut-être euh, en tout cas 2024 problème stockage aussi war nañ ko mën a régler mais sauf que euh, on a réglé le problème de la production am nañu lu ñu mën a dundal mais c'est gra euh, monsieur je sais pas si vous vous rendez compte c'est un scandale que ñu def effort yooyu yëpp pour de simples problèmes de stockage ah on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie une flambée du prix et on se retrouve obligé di dem di di di importer de l'oignon de stockage ça que vous allez importer mille tonnes non mais en, en, deux semaines on ne peut pas dire simple problème de stockage le problème du stockage c'est un problème aussi important que le problème de la production la preuve c'est que on arrive à produire mais mënuñu am stockage et puis xam nga dañuy faral di wax waaye dugal nañu ay milliards et cetera bu xoolee dans l'agriculture dans le cadre di PRACAS si on regarde estimation des besoins ak li ñu financé mais on était loin du compte en termes de financement naam l'État a mis beaucoup d'argent mais pour le programme li ñu ko waroon financé egguñu foofu c'est comme pour euh, tout les inondations on dit on a des milliards alors que en réalité quand on disait que le programme c'est cent milliards peut-être qu'on a déjà investi on a encore investi ay cinquante milliards extra ñu ngi ci yoon donc man je crois dañu war a en tout cas féliciter se féliciter le fait que Sénégal réglé nañu problème production euh, oignon am nañu autosuffisance mun nañ ko am en tout cas gëm euh, chaque année producteurs yi lu ñuy def war na mën a dundal Sénégal léegi dañ ko war a organiser pour que stockage bi mu am parce que aussi le problème qu'on a c'est que le petits producteurs boo defee ay magasin de stockage un peu loin dañuy am problème parce que on a de petits producteurs donc loolu moo tax il faut que ñu tas ay magasin de stockage au niveau de toutes les zones de production ca ci programme mais mais mais est-ce que du une tare congénitale moom moo ñu topp te mu leen di rattraper boo xoolee euh, Sénégal 60 pour cent Euh, de la population ci secteur primaire bi la nekk. Euh, on n'a jamais compris et on pensait qu'avec le président Macky Sall et avec le PSE on allait y apporter des rectificatifs. que pour un pays boo xam ne euh, am na ensoleillement am na terre 60 pour cent bi nekk ci ci ci secteur primaire bi agriculture mënoon na mënoon na mënoon na occuper par exemple du budget. du du du budget national pour un budget de six mille milliards ñu jël quatre cent cinquante milliards alloué ko euh, à un secteur aussi important que que que l'agriculture euh, alors que euh, président Macky Sall ci magistère am bi mu bëggee régler la question du désenclavement et des infrastructures que ce soit dans les capitales régionales ou dans les dans les zones rurales avec le PUDC mais dafa injecter énormément d'argent le TER Euh, sept cent milliards euh, projet BRT du euh, mu tudd l' acquisition des des des des des des chaloupes pour la liaison à Dakar Gorée plus de quatre cent milliards pour le pour le PUDC pourquoi l' agriculture au Sénégal ne peut pas bénéficier d'un plan national boo xam ne par exemple dañuy jël mille milliards ou mille cinq cent milliards dugal ko ci agriculture bi euh, même pour la pêche, on a des problèmes euh, de, de, de, stock, de, stockage et de, et conditionnement. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez sans doute porté le plaidoyer, mais où est-ce que ça coince nga <coughs> euh, plan Sénégal émergent, man ci sama gis-gis maanaam mooy plan bi gën a cohérent plan de développement bi ñu am Sénégal xam nga yaa ngi wax infrastructure mais PUDC li ñu defar ci monde rural ci forage ak euh, piste euh, de de de de production loolu yëpp mën nga ko comptabiliser pour l'agriculture parce que bu dee da ngay produire buru ko ci Médina Yoro Foulah te boo produire amul benn piste bu la mën a yóbbu ci benn marché pour nga pour nga mën a jaay ça ve dire que sa production Euh, en tout cas munoo munoo euh, euh, munoo munoo progresser ci sa agriculture. dama demoon fële c'était ma dernière conférence d'ailleurs en tant que ministre de l'agriculture bi ma demee fële am na benn zimbabwéen bu ko waxoon mu ne agriculteur boo xam ne amoo fay jaay jardinier nga donc bul xalaat seulement li ñuy def ci aménagement ci jënd matériel agricole def ci lu bëri moom moo dem ci agriculture li ñu defal monde rural yëpp en terme de piste te boobu mu ngi ministère. des transport wala ministère du développement communautaire avec le PUDC li ñu defar ci forage mi nga xam ne mu ngi développement communautaire li ñu defar ci électrification rurale mi nga xam ne mu ngi ministère de l'énergie loolu yëpp bu ko xaaj nga ne bokkul ci agriculture ci agriculture la bokk PUDC c'est l'une des réussites de la politique voilà donc loolu donc loolu moo tax bul jël budget ministère de l'agriculture kese nga ne tant de milliards la donc defaluñu agriculture lu ñu ko waroon defal non il faut regarder ñaata moulin ñaata matériel de transformation mais mais PUDC déjà dugaluñu ko ministère de de de. mais loolu mais c'est pas grave. c'est-à-dire le gouvernement non xam nga li ma bañ non li ma la bëgg a expliquer. Ah? xam nga boo ma waxee ne li ñu jox agriculture dafa néew. parce que budget ministère de l'agriculture lii la dama la bëgg a wax bu ko yemal foofu xamal ne. li ñu def ci PUDC ci agriculture bi la dem li ñu def peut-être au ministère de l'énergie pour électrification rurale ci agriculture la dem donc il faut regarder le budget global non, de l'État du Sénégal non non non on ne peut pas on ne peut pas maintenant maintenant man d'accord naa ci benn affaire man li man loolu sax wax naa ko ci télé yi ah dama ne bu dee nos ressources pétrolières yokk nañu suñu budget parce que le problème de de l'agriculture c'est l'aménagement la maîtrise de l'eau Sénégal heure bi xam nga lu tax atteindre nu ay autosuffisance yooyu mooy maîtrise de l'eau parce que nawet nawet moom paramètre am vraiment dafa compliqué la preuve daaw man avant le remaniement mois d'août dama defoon sama tournée agricole diggante le 17 août si je me rappelle bien 2022 et le 25 août 2022 li ma gisoon ci àll bi te dama defoon ay déclaration comme quoi on allait avoir la plus grande production depuis en tout cas 2010 en tout cas peut-être pour toujours depuis toujours parce que àll bi ni mu naate woon heure boobu gëmoon nañ ni on allait avoir des productions supérieures à celles de 2020 yoo xam ne c'était les meilleures productions en tout cas ci man li ma gis ci histoire agricole qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre on a eu des muy taw béccet muy taw béccet ba rendement ci affaire euh, gerte ci affaire mil ak yu bëri dafa yàqu donc tant qu'on n'a pas la maîtrise de l'eau ça va être très difficile loolu moo tax man gëmoon naa ni bu ñu amee par exemple suñu euh, revenu pétrolier ñu am suñu gaz le gaz du Paola war nañu mën a yombalal aménagement et puis diminuer les coûts de l'énergie parce que aussi irrigation énergie la pour permettre à l'agriculture sénégalaise de vraiment passer le cap de l'autosuffisance. Sur la situation de la garde des gros porteurs oui. et du marché d'intérêt national. instructeur yu infrastructure yu nekk jam ñaajo di nelaw foofu. non xam nga j'ai vu quelques producteurs yu ñu ngi koy démarrer mais gëm nañ ni. non ah. non attention ñu ngi koy démarrer euh, je pense que l'ARS l'ARM l'agence de régulation des marchés mu ngi liggéey ci loolu ak ministère du commerce pour que ñu rentabiliser ko. donc il faut pas perdre espoir gëm naa ni marché boobu en tout cas war na mën a jural Sénégal lu lu euh, maanaam lu baax ci at yii di ñëw donc c'est bien qu'il soit là léegi dañ ko war a rentabiliser